Aïssatou Penda Diop voyante bu mag bile nekk ci géejawaay golf en face cité Alioune Sow ci croisement Béthio numéro téléphone am 77 376 31 52 moo leen di may seen émission préférée kiwin biis mu ñu dégg mu am sàññi bay poste ci li nga xam ne moo di ci page réseau social yi mu amee moom mi di kiwin biis ginnaaw ba mu fi génnee benn waaye tuddee ko óolale jagleel ko gaynde njaay boobee nga xam ne ci la génn ay teaseram ci lay fi tàmbalee neex ci gaynde yi gaay di ko bravo woo ak di ko wéew di ko xamal ni ko yow yaa jik équipe nationale bi yow la war a jox lépp yow la war a jëf héros national Momédy Queen bi ginnaaw bi ndam li nga xam ne gaynde jël nañ ko war ko indi fii ci Sénégal mu mel ni ndam li ndamam la Queen bis dafa aaki moo bi ngar ko bañ kenn ku ci laal bañit kenn ku ci wax Momédy Queen bis ginnaaw bi ndam li amee nag sénégalais di ko feetu gis nañu ñu tëgg ay concert gratuit yoo teg loolee mooy li jur aw sàññi ci kanamu kiwén bis ba tax mu dal di bind ne Sénégal hypocrite yi dañ fee bari naafeq yi ci gàttal ñoo fees dell ci suñum réew bu dul baay bi di doom ji waaye li ngeen li ma gis nii ci àdduna bi li ma gis fii ci Sénégal muy benn lobby boo xam ne yéen a ko créé ngir mën a aakimoo musique bi nga ngar daajoo ko mën a taxaw ci kanamu équipe bi ba mu mettee man dong maa fi taxaw ba way jotee man dong maa way bi nga xamee ne ñëpp ragal way ci ngir musiba ak melengaan gi nga xam ne ñu ngi leen koy yàq ci réseau social bi bañ ngeen way équipe nationale bi bañ ngeen catu leen bis boobee ba mu mettee ba ñëpp dawee man man Queen Biz maa taxaw daal di way gaynde yi man kott man Queen Biz taxaw génn sama benn clip man kott man Queen itam maa taxaw fësal sama bopp dëggal sama bopp wane sama bi nga xamee ne nag dem na ba ndam li ak si yéen ñëpp ngeen ñëw ngar daajaw ko aakimoo ko waaye seen lobby boobu ne dina jeex tàkk te su ma leen ko waxee na ngeen ko gëm moom mi di Queen Biz yooyu mu yëkkati tax na gaay di ko yekk musiba ak melengaan ci li nga xam ne moo di ci réseau social a ngi dal ci kawam ñu ci mel ni waa kër Wally Ballago Seck ñu koy xamal ni ko nag fi nga dugg dootoo ko defati ki nga xam ne moo di Wally Ballago Seck laalaake la bis boo ko laalee di nga dégg musiba ak mbelengaan di nga dégg la sa maam ya daan dundee daaw ba ak ñu ak tay ji moom it di Queen Biz ñëpp ngi dal ci kawam am nañu titre ci benn wooy Wally Ballago Seck boo xam ne mu ngi ko doon def ci concert gratuit ba mu doon amal ci bi di naan Wally mu ngi naan wa aar bi kenn moomu ko ñu bari di titre naan Queen Biz lay tontu bi muy jaar yoon la boo xam ne amul kenn koo xam ne féete na Wally Ballago Seck mooy le roi ci ñi nga xam ne ñoom la séqal maas fu leen fekk duma leen daan leen loolee tax na ñu bari naan Wally amul jotuk tontu Queen Biz moom mi di Adamo tontul yekk musiba ak mbelengaan dem sax ba koy tifaat ci li nga xam ne moo di ci vidéo ba Adamo yekk na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne moom moo di Queen Biz ba noppi itam jëf jëf ju rafet jëmale ko ci Oumou Sow ak ki nga xam ne moo di di Pendo ci benn vidéo boo xam ne Adamo def na ko dafa daal di jubale Pendo ak ki nga xam ne moo di Oumou Sow gannaaw seen diggante bi mu musiba ak mbelengaan lu ne waxante ko ca muy Oumou Sow muy Pendo te li ko waral moom moo di ne kii dafa faral Bamba Fall kële far ci ki nga xam ne moom moo di Ba Messi te li waral loolu le mooy Pendo moo duggoon ci groupe bi di jibile Oumou Sow gis ci boppam daal di ci kaw Pendo xoluk iñaan dëggantaan ni mel ci la ko Pendo tontu di ko fàttali dëmb moom mi di Oumou Sow na leen di dajale ci live am ba daat leen boole ñoom ñaar ne leen nag bëggatuma dégg benn kàddu gu jóge ci yéen ñaar muy kàddu yu ñaaw na ngeen teg lépp ci suuf ndax yéen ñaar ñëpp ay doomu nday ngeen li ma bëgg mooy sénégalais yi ñu bàyyi seytaane gi ñu nekke bàyyi jaxase ay doomi aadama yoo xam ne benn la ñu kenn mënu leen a tàqale Adamo jëf na jëf ju rafet jëmale ko ci Pendo ak Oumou Sow léegi nag jeex na tàkk seenuk fantasi rooga jeex na léegi nag benn lañu nañ ko nekke woon noone la ñuy delluwaat di nekkee ci Ismaïla Sarr wax na ci biir Feeling Dakar TV moom mi di yaayu Ismaïla Sarr fa mu doore nee na Ismaïla Sarr dafa donn football gi nga xam ne moom la nekk tey gannaaw ba mu daan jàngi nag seen professeur daf ma daan woolu naan ma kaay bu ma ñëwee mun sa doom ji utal ko métier goo xam ne dina ci mën di yëg ndaxte njàng mi nga xam ne ci nga ko bàyyi jamono ji la du jàng boo xam ne bëgg na ko du jàng waaye dafay ñëw fii rek di football jamono jooju la ci lañ woo Ismaïla Sarr daaj ko nekkoon lan nga bëgg def ñu daal di la nga defe ji ko mu ne man tëyër laa bëgg doon jamono jooju la dem na ba jàng nekk ab tëyër boo xam ne mën na ko bu baax a baax waaye terewul football bi ci la ko yàlla orienté mu daal di ci nekk li mu ci nekkee tey man nag musuma tiit ci ay mbiram te saa bu duggee ci terrain du ma ko seetaan waaye terewul itam jomam ak fitam ngor bi mu àndal da koo jële ci baay bi baay bi international la woon sama mag man mi itam international la woon ci gàttal football daf koo doon mu agsi fi mu agsi tey dañuy sant ak di gërëm yi nga xam ne bi ko waa clubam naroon a téye ba du ñëw ci coupe d'Afrique daal di yekk musiba ak mbelengaan clubam bi ne leen suñu publier ci seen page ñoom waa Watford gis li leen sénégalais di yekk ci xeetu musiba ak mbelengaan ngir seen doom gi ñu téye damaa sax mujjee rus loolu nag mooy firndeel ni sénégalais dañoo sotal Ismaïla Sarr moom mi di yaay ji daal ci sénégalais yi sant leen gërëm leen ba noppi leen di baraawoo ne leen nag jàpp leen taw a bàyyi yëf yi dana gën a baax fi baaxul la defee ak Kalidou Koulibaly lu bon moom moo di ci buntu palais de la république foofu a xam ne ak i photo ginnaaw bi ñu jëlee coupe bi doon ko feetu ci buntu palais de la république fa lañ di këfee aw téléphone am ñu bare di samp aw laaj ndax sécurité am na fii ci Sénégal ginnaaw ba buntu palais sax la sàcc yi dugg di sàcc ndax mbir mi matul nag ñu daal samp aw laaj ndax Sénégal jëluñu pee ci li nga xam ne moom moo di ci mbirum sàcc ak li ci aju ndax bépp événement boo xam ne xew na fi sàcc yi dañ ciy profito dugal ci seenu loxo ba nga xam ne ñëpp dinañ gis seenu jug na dal ci kaw gi nga xam ne moo jëf-jëf ju ni mel xam ne téléphone Kalidou Koulibaly boobee wul te itam kenn du ko jël di ci génnee noonu nañu lijjanti ki jël téléphone bi te jéem a xam kooku mooy kan yëf yi dafa xaw a luus moom it Khalifa Rapport nanguwul ñu bàyyi mu sedd ma daw ci ministère de la santé et de l'action sociale jëli leen point covid du jour bi tey ji la di mercredi yamoog 9 février atum 2022 ministère de la santé et de l'action sociale def nañu 1372 tests ci ñooñu leen ñu am mbas mi di covid 19 deux cas la ñu ca amee mooy ñi jaxasoog ñi amee mbas mi boo fa dafa am mbas mi vingt communautaire la ci am mooy ñi amee mbas mi te xamuñu fan la ko jëlee cent faj nañu leen ba ñu wér ñu i yitte delluwaat ci seen i biir kër ñu faj leen ci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 Guédiawaye golf en face cité Aline Sow ci croisement Béthio 77 376 31 52 Aïssatou Pande Diop nee la am na ay bague mystique yu doy am na yeneen i càngat yoo xam ne boo ko xasee ba sangoo jaratul ngay dem fenn kooku mooy Aïssatou Pande Diop la voyante du peuple